fii ci arène nationale li nu fi indi di xew-xew bu mag xew-xew bu mag bi ñu war a feete xew-xew bu mag bi ay jàmbaar war a wane seen bopp feet gi mooy vingt ans yu Luc Nicolas def ci làmb bi mu ci duggee ak tey jii 1999 la woon mu dugg événement di événement Mohamed Ndao Tyson ak Mor tey jii ñu toll ci ñaar fukki at yi ñu war koo màggal boole ci nag xew-xew bu mag mu di làmb ju war a dox diggante Gris 2 ak rëg-rëg waaye xam ngeen ni Quench ak Diène Kaïré dinañ ci laale caat ak armée bu benn baraak dinañ ci laale mu di làmb yoo xamante am na yeneen juróom-ñaari combat événement bi rëy lool moo waral nag fii ci réew mi nag am ñu nu dénk kaaraange ñi nu dénk kaaraange rawatina ci diwaanu Pikine ak lépp loo xamante ni jëm na ci aar doomu aadama te li fi da daje samedi le juin mu doon mbooloo mu takku ba tax na tey jii g bi nu dénk wàllu làmb ànd ak Luc Nicolas ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci Luc Nicolas Enco ñu ñëw fii ci arène nationale ngir nemmee ko stade bi jël ay matukaay yu wóor yoo xam ne képp ku fiy ñëw na la wóor ni sa kaaraange dinañ ko matal ba mu mat sëkk moo xam booy dugg ci stade bi moo xam booy génn ci stade bi avant pendant et après bu làmb ji jeexee dinañ leen topp ba doomu aadama yi ku nekk am kaaraange ngay mën a egg fa nga xamante fa nga jóge woon loolu moo waral waraloon tey jii ñu ñëw fii ci arène national daje fi ak CNG mi nga xamante ni loolu moom mooy liggéeyam aar doomi aadama yi dugg ci biir arène bi indi fiit ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ñu yor wàllu sécurité ñu wax nu lan lan nar a jël ci ay matukaay ba doomu aadama bu jóg boo ñëwee bu keroogee samedi la 15 juin di nga fi dugg ci jàmm génn fi jàmm bu dee ni neex na yàlla kon mbokk yi li ñuy jëkk def mooy dañuy jox alaaji Thierno mi nga xam ne vice président la ci CNG te xam ngeen ni mu yor lépp loo xam jëm na ci organisation communication ci làmb ji mu wax nu matukaay yi ak lépp loo xamante ni bokk na ci bis boobu te CNG ajo woo ko alaaji Thierno Ka jërëjëf Bécaye gannaaw bi ñu nuyoo ñëpp di balu ñëpp ak ci Korité gi ñu génn euh, ñu rafetlu euh, teewaay bi fii li waral euh, teewaay bi nag mooy combat le 15 mooy combat yi gën a mag yi ñu fi organisé gum kon dafa la aaju ñu jéem a seet nu ñuy def pour sécuriser au maximum manifestation bi looloo waral euh, police mu ngi fi euh, bu Pikine nag commissariat central commandant du corps urbain ñoom ñëpp ñu ngi fi pour ñu jéem a nemmeeku lan lañu ñu war a def seet itam naka lañ ko war a defee pour que nit ñi seetaan ci jàmm ak seen teewu bakkan alors lii daan nañ ko def daan nañ ko def waaye euh, combat yi fi jot a am yëpp laaju ko woon ndax du woon ay combat yu euh, am boobu maxama moo tax bii ñu dañuy ñëw ànd ak ñi nga xam ne ñoo yore kaaraange gi pour ñu seet ku ci nekk li nga war def pour que bu bés baa ñu seetaan ci jàmm ñibbi si jàmm ni ko Bécaye waxee sànq alors euh, li ñu jël ci ay matukaay moy lañ daan jël rek xëy dañ koy renforcer euh, dañ daan wax toujours promoteur yi ku fi tëgg da nga andi téeméeri tak der promoteur bi passé na si limu mu waxtaanee ak waa waa police dinañu andi lu ëpp téeméer kon environnement stade bi dinañ ko sécuriser euh, pour ñi nekk ci biir ak bu jeexee itam nit ñi mën a ñibbi si jàmm euh, am nañu grand combat muy Gris ak euh, Reug Reug am nañu yeneen ñaari combat yoo xam ne yi bu ci nekk moo na nekk grand combat muy euh, Armée ak Thiat euh, Diène Kaïré ak Konch alxames ci 4 heures dinañ waxtaan ak manager yi pour mbër yi xam ku ci nekk fi nga war a yem lii la yoon may ak la mu la mayul pour que ñu mën a am manifestation bu mucc ay donc lii am solo mooy nit ñi xam ne ku ñëw ci làmb ji samedi incha allah jàmm moo lay andi bu dee jàmm moo lay tax a jóg jàmm nga fi fekk bu la leneen tax jóg rek di nga fi fekk leneen donc euh, loolu mooy li nga xam ni li mënoon nañu ko wax ci gàttal parce que ñaari affaire mooy am tey buñ si paree euh, bu subaa ñu gisee ak euh, manager yi manager mbër yëpp ku ci nekk xam fi nga war a jaxaw comme ça bu samedi ku ci ne di nga xam exactement li la yoon may ak li mu la mayul ñu teel a wax nag ne euh, juróom benn batterie xajul fii c'est-à-dire grand combat bi mbër yi ku ci nekk di nga andi sa batterie sinon ñi si des ñëpp batterie centrale moo leen di tuusal parce que juróom benn batterie mënuñu ko def fii kon dafay bari nit lool ci biir géew bi te géew bi ni ñu koy waxee dafa nar a xajam kon nag euh, mbër yi xam ne à part grand combat bi ñom ñep du andi batterie batterie centrale bi mooy batterie lamb ji mo leen di tëgal ñaarel bi moy dinañu leen wax ku ci nekk ñaat nit nga wara am grand combat bi généralement quinze personnes lay am euh, combat yeneen yi dix personnes même bu dee ay combat ay grand combat mais bii grand combat bi mooy Gris Bordeaux euh, Gris Junior ak euh, nu mu tëjee ak Reug Reug donc bu ñu génnee ci loolu mooy fii parce que dañuy jéem a seet nu ñuy def ba nit ñi néew ci géew bi parce que nit ñi bu baree seetaan gi euh, dina xaw a jafe même si ni ñu tabaxee arène bi ngeen ko gisee fu ne fu waay toog dina gis te arène bi fii ñeenti junni ak eh, ak ñaar ci ay ay place la muy vingt deux mille places moo ëpp Demba Diop fuuf Demba Diop quinze mille la fii vingt deux mille places assises la ñu wax c'est-à-dire que ay nit ñu taxaw mën na ne donc mën nañu passé vingt deux mille donc vingt deux mille nit ñëw il faut que ku ci nekk xam la nga war a def ak li nga euh, li nga li nga war a éviter pour que mu nekk ci jàmm jeex ci jàmm ñu ñibbi ci jàmm donc loolu euh, pour yéen waa presse bi nag après naa ci waxtaan ak ak ak Luc pour les histoires d'accréditation et cetera parce que ba léegi nii am na ñu may woo waaye ba léegi sotteegul rek léeguñu problème boobu ak ak euh, promoteur bi donc loolu dal ci gàttal mooy li nga xam ne moo nañ koo wax mais ñu xam ne du guléet du guléet ñuy def yu melni nii lay doon ci combat yu mag yépp dañ koy def combat yi fi dafa gum ba légui bi moy bu mag bi combat euh, Modou ak euh, euh, Balla Gaye bëggoon nañ ko fi organiser mais man la leen waxoon buñ ko fi def ndax mënu mënuñoo commencer exploiter arène bi ci grand combat il faut que ñu am ay repères ba paré sogo mëna mën fi donc yeneen combat yi ñuy wax yëpp nag mën nañu fee nekk donc euh, loolu mooy li nga xam ne mënoon naa ko ci wax xanaa corriger tuuti Alaaji Bekay bi mu wax naan Luc bi muy dugg ci combat yi mooy combat euh, Tyson ak Mor Fadam déedéet gala bi mu njëkk a def moo doon combat Moustapha Guèye ak euh, Lac de Guerre Yékini et cetera boobu la woon ah baax na d' kon nag d' accord merci bien loolu laa doon bëgg wax.

gërëm le commandant du corps urbain gërëm képp le commandant du GMI ak képp koo xam ne takk der nga bu ñëw fii tey bu ngeen gisee le commandant du corps urbain moo ñëw ma nga ne ca ginnaaw taxaw moom moo ñëw jiite karange bi mi ngi ànd ak le commissaire du ba bi nga xam ni buggul wax tur yi nee nañ mooy commissaire bi nga xam ne mooy kii yu Pikine waaw ànd ak ñaayu xare yi mooy leen daanaan mooy le gémi borom mbaxane xonq yi ngeen gis ñii seen liggéey lan la xarañ xarañ mooy lan def yoon te defe naa ne bu ngeen leen gisee nii seen xel war naa dal ñoom li ñu war a def yëpp dinañ ko def dinañ sécuriser nit ñi ni ko Bécaye waxee seulement nag il faut ñu am lu ñu leeral nit ñi bu njëkk nit ñi dañ daan wax ni boo ñëwee ci làmb ji da ngay tiit booy ñibbi wala booy kii côté boobu laa bëgg ngeen xam ne seen xel dal waxu wala ak ñibbi waaye ba sa biir lal sax bu la ne dañ la fay gunge ni ma ni ma koy mën a waxee daal dinañ jël seen matukaay avant pendant après dinañ taxaw fépp fu ñu war a taxaw muy ci biir arène bi ak ci ginnaaw arène man kañ xam ma ñan laa tiital ñi nga xam dañ fee ñëw pour leneen ñooñu laa tiital képp koo xam da nga ñëw pour leneen di nga di nga gis leneen ku fi ñëw nag pour jàmm di nga am jàmm toiletu leen ngeen ñëw seetaan si làmb ji jàmm day am fii moom les gens vont prendre leur mesure yu leer côté boobu du am benn lu ma ciy wax defe naa bu ngeen gisee nii niñ taxawee ngeen war ni seen xel war naa dal le CNG euh, par la voix du président dégg ngeen li wax fii dañ koy jaarale ci yoon du am benn erreur Bécaye moom xam na li muy kii fii amul lëmbe ku lëmbe rek gars yi dañ lay lëmbe ñu leen di gërëm nag di leen wax nag ni ñun pare nañ pour lépp loo xam ni war nañ ko ci def nañ ko def waaw côté boobu moom na seen xel daal. mbër yi la woon ak cumbukaay bi et cetera waaye ADN bi làmb mooy prioritaire maanaam làmb moo ko moom waaye nag du làmb rek lañ fi def mën nañ fi def leneen léegi dañu bëgg ñaan supporters yeeg fans club yi ñu xam ne eh, arène bi seen arène la ku ci nekk da nga war a taxaw si taxawaayu lii maa ko moom donc dama koy aar il faut que ñu ñu bàyyi lépp lu ñuy tere du niveau bu nekk am na ay ay toilettes bu ñu paree après ngeen xool ko di ay toilettes yoo xam ne yi dañu mucc ay mais il faudrait pas que nit ñi ñëw pour yàq donc ku ci nekk la nga war def nga def ko ay siis ñuy damm yuy damm ak yooyu itam ñu moytu ko parce que bu ñu ko dammalee làmb ji lañ koy dammal dina am ay dig ñoo xam ne fu ñu waroon amee vingt deux mille dinañ dem ba xëy am am mille ndax amatuñu ay siis donc il faudra que ñu ñu veiller ci loolu ñu veillé ci loolu donc loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko ci yokk euh, yéen caméraman yi nag bu ñëwee ci bés bi dinañ leen wax fan ngeen di toogee li wóor te wér mooy kenn du to dugg ci biir géew bi kenn du euh, euh, toog ci saaku yi dinañ leen won fan ngeen war a mën a toog waa commission organisation dinañ leen wax fan ngeen di toog te foo leen di mën di toog itam ngeen fexe ba fàttaliku ne am na ay nit ñu nekk seen ginnaaw yoo xam ne boo leen taxawee du ñu gis donc foo leen toogee ci biir ak fu mu leen mën a itam il faut ngeen toog il faut que ngeen toog loolu laa ci bëggoon dolli merci. joxal li après waaw kon léegi li ñuy président dégg président jërëjëf wax na wax bu am solo rawatina wàllu chaise yi yi ñuy toog yombul arène bi yombul ay ati at ñu ngi koy wut amuñu ko kon buñ toogee tey jii ba am arène yow sa mbër daan nga jóg taxaw ci chaise bi di bonde di tëb ba damm chaise loolu rafetul nan leen di def loo xamante ni moo rafet yooyu moom amateur moomu ko fan sa club ko moom kàddu boobu fan sa club yi ñoo koy def stade bi bu yàqoo amateur yàqu ko stade bi bu yàqoo fan sa club yi ñoo koy yàq te loolu nan ko moyandi ko taxaw ci kaw chaise chaise ba ca Amérique sa boo ca taxawee mu damm chaise ba ca japon boo ca taxawee mu damm kon chaise yi bi boo ci taxawee day damm nanu moytu loolu loolu ba bokkul ci luy tax arène bi am taar dañuy jox kàddu gi Luc Nicolas le promoteur bu pare ñu amateurs yi war ci sànni seen kàddu ci teewaay bi nag xam naa ne lii du guleet yàgg nañ ko def euh, daje yu demee nii yàgg nañ ko def euh, buñ koy def aussi souvent ci teewaayu CNG lay doon di profito di remercier Thierno Ka ci disponibilité bi ak ñi mu àndal ñëpp di wax ne nag ni ko sécurité bi waxee léegi par la voix du commandant Thioune euh, di tax ñu def lii tey ñun xam nañ ko ndax euh, am na lu bare loo xam ne ñu ngi koy dégg ci wàllu arène nationale bi te dañu bëgg a euh, wane ne aussi li gaa yi yaakaar dëkk bi dafa am yoon te dafa am ay forces de sécurité yu xarañ yo xam ne ñoo fi nekk notamment la police nationale comme ni ko Thioune di waxee di remercier bu baax Aly Ngouille Ndiaye le ministre de l'intérieur parce que moom itam yii yëpp ci ndigalam la moo tax bi mun am nii tey di wax ne daal euh, jour ba moom aw ci xel ñaar parce que yàgg naa def événement Té ni ñu waxtaanee ak sécurité bi man wóor na ma wóor ne jour boobu euh, ni ko Thioune waxee ñi ma ñi fi ñëw pour def leneen waaye képp ku fi ñëw pour jàmm jàmm jooju di nga ko am képp ku fi ñëw aussi pour la safaan ah yaakaar naa di nga ko am ba mu doyal sëkk ak barke parce que ni ma dégg nit ñi waxeek man man leer na ma leer ne combat bi ce sera l'un des combats les plus sécurisés de l'histoire de la lutte sénégalaise bu ci yàlla àndee di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne daal lii aussi rafet na parce que lii rek mooy liggéey bi ñun ñëpp ñu ànd liggéey parce que damay wax toujours maa ngi ciy waxtaan bërki démb ak ku sore ci làmb ji ma ne ko li am solo ci làmb am na loo xam ne du ci mérite du ci mérite mooy lan mooy fekk lu sotti loo xamante ne sotti na ba pare événement la nga tëgg ko nga ñàkk ko tëgg du doon événement la nga jël ko loolu je que mérite amu ci mérite fi mu nekk mooy comme liggéey bu ñuy liggéey nii ak ñun ñëpp journalistes yi yéen ñëpp teew fii mooy fekk loo xamante ne day jëmale kanam làmb ay xale yoo xam ne dañuy lukkeeku ñu jël leen tëgg leen xeex ak ñoom ba fexe ba def ko par force événement mu doon événement imposer ko nit ñi mu doon événement te loolu bu dul yéen ñi toog du mën a am donc dama leen ci gërëm di leen sant di wax ne làmb yi ñun lii rek lañ ci dese jël xale yi di leen génne waaye mënoon nañu toog def niñ daan def rek jël événement yi di ko teg mais lii aussi rafet na dañ koy rafetlu di gërëm di sant ñëpp di ñaan yàlla ñu egg samedi ak jàmm ak salaam euh, di préparer aussi ay innovation yu xamante ne daal bëgg nañ ko ci indi ci kàttanu suñu borom lépp nag lu war pour làmb ji neex dinañ ko def di ci des ñu dénk ko yàlla wasalaam. paas ak ouverture punt yi. heure bi ñu koy ubbi. la ñuy ubbi bunt yi. heure bi ñu koy ubbi. public bi. voilà mais bunt yi moom dinañ ko ibbi dix heures ci suuf. pour supporter rek. benn mbër nag neuf heures et demie nga ñëw fi. wala dix heures wala onze heures. mbër bu fi ñëw heure boobu doo fi dugg. quatorze heures maanaam deux heures bu jotee ci la ñuy commencé bàyyi mbër yi ñu dugg. amateurs yi nan la ñuy duggee ñaata la ñuy paas Ibrahima fay ñaata la. waaw lu lu tax ñu war a leeral mooy bu ñu nee dañuy jaay ay. lu tax euh, salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu euh, lu tax ñu war a leeral ci billet yi mooy bu ñu nee dañuy jaay ay code parce que pay per view la ñuy def dañuy jaay ay code pour ñu bëgg a seetaan seen télévision ñu bëri dañu foon ni billet làmb ji 2000 lay jar mu am ay supporter mbër sax di woote naan 2000 mais 2000 bi carte à gratter yi la mooy pay per view mais billet làmb ji pour dugg si bu ngeen gisee vert ak jaune bi 3000 lañ koy jaayee vert ak jaune bi mille rouge bi nekk ci suuf. boobu mu ngi jaayee mille moom la ñu woowee tribune amateur ci digg bi nag am na rouge rouge boo xamante ne beneen façon rouge la boo xamante ne c'est moins vif boobu ñu ngi koy jaayee 10 000 mooy annexe loge après ngeen am loge officielle moom 15000 lay jar donc ñu retenir supporters yi 3000 euh, amateurs yi 5000 mooy ci suuf annexe loge 10 000 loge officielle mille mais bokul ak carte à gratter yi carte à yi mooy ñu tok seen kër bëgg a seetaan ji ci internet bi ci seen affiche point ñu ngi koy jëndee 2000 francs bu nekké ci diaspora bi la nag 5 euros lay jar bu jour ji nag mooy samedi bi ñu koy jaay 9,99 euros parce que ñu bëgg nit ñi gëna a jënd motax ñu wañi prix bi avant jour ji je pense que loolu mom moy prix wu billet yi ak prix wu pay per view bi. Euh, di rafetlu euh, conférence bi Luc Luc Luc euh, organisé. Euh, di wax ni amateurs yi ñoom euh, euh, seetaan lamb la bëgg te seetaan lamb bu ñu leen defee ci condition ñu war a seetaanee lamb ci lay ñëw billets yi nag amateurs yi billets yi cheru pour ñoom parce que d'habitude fii loge officielle daan na jar lu ëpp lool loge officielle 15000 lay jar beneen loge bi mille beneen bi 5000 vert et jaune ci kaw nga xam ni ñëpp fa la ñuy toog 3000. loolu lu baax la mais léegi ñun li nga xam ni moo am importance mooy li ñuy dënk mba euh, amateurs yi mbër yi fans club yi mooy discipline arène bi ñun ñoo ko moom te arène bi fi la ñu war a bëree te arène bi du làmb bii rek lañu fi war a bëree mun nañ fi bëree sax euh, lamb ju mag a mag waaye lépp ci discipline lay nekk su fekkee ne comme ni ko Bécaye waxee sànq da ngay ñëw taxaw ci kaw kii bi di ci daanu stade boo fa tëb mu dammee noonu ñun ñoo war a am euh, état d'esprit boo xam ni lii sunu sunu mbir la sénégalais yi ñoo ko moom ñu respecté ko ndax ku jóge sa buntu kër sa salon doo fa tëb boo ñëwee ba nga xam ni état bi daf la defaral dara loo xam ni da ci war a seetaan da nga ci war a toog di bégee danga am discipline boo xam ni war ngeen ko mun a def amateur yi nag ñoom ñëpp ñu discipliné lañu ñoom ñëpp.